pourquoi mhm. ils n'ont pas dit la vérité ils ont trompé les populations et les jeunes. C'est comme les gens qui ont dit c'est-à-dire politique ils font la politique c'est le fait de mentir de dire des de vérités pour que ne fasse la boo paree de fermer des portes et d'exercer l'autorité. Mhm. c'est c'est deux hypothèses la première hypothèse ils ils font la politique. Et quand ils seront élus, après avoir trompé les policiers les, les populations, ils font le politique. Le politique, moi, le fait d'user des moyens de coercition légaux. Moi, doole à force. non lañ les di nax ñaari politique lañ di dóor ñu sénégalais yi ñu ci la politique lañ leen def on les trompe tout ce qu'ils veulent ils leur dire ça dañuy nangu alal ji ñu nangoo li yeddoo ko réew mi li ñu fi yor ci xaalis fekk du dëgg naan leen pétrole bi ko reconsidéré sénégalais yi ba Ahmed Aïdara inventé fii daan quatre cent mille nañ tout est gagné ils n'auront rien ku ci liggéeyul doo am dara danga gën a xiif gën a mar gën a rafle gën a torox parce que réew da ngay jàng da ngay créer da ngay def état bi encadré la accompagner ñoom nag fi ne ils à tout dire ils disent tout n'importe quoi dem nañ pour avoir l'électorat Casamance euh, Casamance nga ne leen damay indi capital bi <laughs> xam nga boo ko waxee am na ñoo xam dañu yaakaar ne yow suba tamit ñu indi aéroport bi Blaise Diagne la ñuy déplacé indi noonu c'est ce qu'ils en train de faire mm-hmm. loolu dañ koy jàng c'est les écoles de subversion dans le monde où nous sommes pour gagner en politique surtout dans les pays tiers monde là il faut pas si tu leur dis la vérité ils vont pas t'écouter mm-hmm. on leur a dit ça ils utilisent la politique et après ils vont utiliser le politique ils vont la fermer et puis ça sera une leçon parce que quel dootu fi mais on le souhaite pas expérience et puis la c'est comme le droit il est dynamique et scientifique réew dafa dynamique parce que da ngay dem ay étapes ni ñuy ay génération qui ñëw ngay former ay technologie di ñëw mooy côté scientifique bi ngay inventé ay start-up di inventer ay industrie nouvelle ah di di def façon d'agriculture la pêche on change les données ainsi de suite donc ce qui se passe au Sénégal ce qu'on est en train de faire dafa nekk un plan correct boo xam scientifique et smart nit mënu koo jéggi ne da nga yor Sénégal c'est pas vrai mais fi ne da ngay tromper tromperie moo jot tu dis du n'importe quoi bu serigne waxe sax sëriñ yi nga doon saaga naan du dem fi ak dem fi da ngay taxaw daal ne leen damay ñew nangam bo paree fermer bunt yi ñu dem seeti lu ñuy def ils n'ont qu'à aller manger leur alluwa non lañ leen di wax ils vont leur dire ça après mais ça sera après et ça sera trop tard les jeunes bu baba lu ñu mën di rebeller wu te bu ñu rebeller woo ñoom ils vont donner l'ordre les forces de sécurité ñu fistiger bis buñ démé li ñu naxe jeunes yi wax la lu dul deug bis bu ñu bëggee rëcc mba dina rey ci bi ils vont dire aux forces de l'ordre de tirer pour les protéger parce qu'il sera obligé de tirer pour les protéger parce que gauche ci palais bi la ñu leen di fekk bu ñu assassiner mais qu'est-ce que la gendarmerie va faire la gendarmerie li ma leen waxoon rek la gendarmerie sera obligée de les défendre par les armes donc ñoom lépp lu ñu wax bis bu Sénégalais defee erreur ba rek lañ ñoom danañ ko gis benn par benn diko dund li may wax ni dañ koy vaaraat ci net bi ngeen koy gis ils vont être menacés ils vont être acculés ils vont demander aux forces de sécurité de tirer. Ils vont donner des réquisitions spéciales pour que les gens tirent sur ces gosses-là. Parce que gosses, mais ils créent des insolents, des malhonnêtes, des violents. Mais nous, nous, nous, nous, alkaane la ñuy dugg alku xam nga alku xale boo xam ne da ngay xëy di saaga xamoo mag xamoo xale xamoo wàlliwu xamoo sëriñ boo xëyee di saaga kooku boo ko saaga mu yor kursam comme ni di la wér rek ku ko sa am na ñoo xam ne da ngay toog fi ñu toog bët set ñu rey fukki nit tok àll ak leen. Mhm. waaye te duñu wax kenn dara fiñ tok lañu tok yow nak xalé nga bo demee fi wër ndom bis boy day yëmbal wala Malika kenn du ko yëg c'est est là où ils amènent les ces gosses là ils vont se rebeller parce que ils leur ont promis l' impossible et que et que pourquoi ils ont ce comportement parce que ils ont des bailleurs ils ont des partenaires yo xam nañ dañ leen a nax li ñu la ce n'est pas possible. il peut pas fait créer une monnaie ah pour que ñoom ñu créer ñu monnaie da ci am dividende mun da nekk ñoom mënuñoo ñëwaat ñu leen joxaat pétrole bi dépassé nañ niveau boobu pétrole bi c'est la continuation ou bien c'est l'arrêt Sénégalais yi nag moom fii la ñu xamee lépp dëgg la ko samay waxee danañ ñam loo xam ne ñëpp danañ yeewu dem Mauritanie Guinée Bissau Guinée ak Gambie bu boobaa nag ci la ñuy del si comme di d'Ivoire doo a nekkaat ay nit a mën a discerner respectante mais tant que a ci niveau je pense dans ce pays là mais ça sera du n'importe quoi parce que si les net rek ci mais c'est une honte de rire. quoi parce que nous, taxaw fi politique pour di wax bu France la wala bu on raconte des conneries mais ce monsieur là il raconte des conneries il t'écoute même pas mais xam di ko wax Sénégal yow mi pas yow pétrole bi bu mi ngi mel nga sa benn bâtiment ba ba ba ba finition monte Le porte carreaux bâtiment bi mën naa la defal bu ko gën ci waxi kese la nañ ko toj da nga ko toj. toj ko commencé wa nañ ko toj. waaw ah, waaye mais doo ko toj donc soyons clairs. c'est mm-hmm. c'est de la tromperie c'est de la tricherie c'est de la menace subversive c'est c'est c'est c'est fallacieux. et c'est c'est c'est des carpes c'est des châteaux de carpes c'est est naxe pour gagner ils s'en fichent ils cherchent tout pour gagner ils sont activé charlatan ils nga gis ñu nekk net bi plus parce que si toutefois que ils perdent ce pouvoir là mais ils seront alignés net parce que ce qu'ils font c'est de la délinquance Si nit ñi dañ ça va plus exister au Sénégal ça c'est clair Moi, tout ce qu'on souhaite pour que ces gens-là soient rééduqués qu'ils aillent travailler faire leur job aller réapprendre aller s'auto-éduquer ils ne sont pas éduqués et puis euh, nee nañ kuy mi ngay kii yow yow la yëkk mbëkk gis nga ñoom liñ dugg nii ñoom ëllëg bu leen yàlla mayoon nguur ñi nekk ak ñoom dañu leen ñeme yàpp lañ naan la fii la nekkoon di rayante ngeen nangam suñu wàll bala ñu rayante ngeen. Mm-hmm. ça va continuer dans ce pays. d'accord ana c'est ok.